oto yi dawal ñëwal yonent bi ñaanal la nga tàqali kook moom ñoom ñëpp ñu ne nërëm ci suuf su ko ci kanam rasulilaay Maodo ne lu métti noonu rasulilaay yi muñ na ko ci këram te wal kaf kaay ma wax la li gën a dee hmm. Seydina Omar ibnul Xataab moo wax soxnaam tontu ko mu ne man góori góor ñi mbedd mu ma jaar bi soo bés dellu si iblis du fa jaar may wax jigéen di ci teg ba maa ngi dem ci nabi ñaan ko ndigal fasa la ñëw ba jub buntu kër rasulilaay seel doomam bu mu may yonent bi mu am 19 ans Hafsatu ay sama af sa bàyyi ma waay mbaxana yonti bu wadd Omar man yàqu mm-hmm. man ñi mu maaqoo rasulullaay mm. sama doom sañ a poñe yonent bi ba mbaxanaam di wadd mooy man dee naa torox naa ndek na bañ koy dégg e Omar mu ne af sa ba ma wax sa baay kaay loo doo dee doo yàqu doo alku dara du la ci fekk ñu ne ah mu ne kii defal na ma ñett war na maa def loo pli kenn du ko kii mooy dugg ci waañu di ma waasal di togg saxaar si di dugg ci gémmiñam kii bu ma tukkee ñëw moo may wéttali ci biir kër gi kii moo may ëmbal doom juróom-ñeenti weer duma ma ko ëmb na ma tuddee ko ku ma neex mu yor sama sant mu gental kër baayam kii war na maa def lu ëpp poñe ma di ko muñ bu ko ci genn jigéen dégg nag seetaan Malikia ne oustaz baa ko waxoon di poñe sa jëkkër mel ni Bombardier mu waa ji sëgg ci làmb ji ñu ne oustaz baa tas kër ya damay jàngale bu kenn poñe sa jëkkër attention na leer de waxuma ko na leer de wala déet lii rasulullaay dund na ko moo danee te teewul wal ka futtin xam ba maa ma sodur unsan jigéen wala sakaran du caagéenu góor maa xaadiman du mbindaan bu ñu joxe ci kër gi min aybin ci benn ay bu mu lay sikkal wala mu yu la mi ta mosulaa yedd kaay ma wax la ah sëriñ bi lu yéeme hmm. sayyidatuna aïsatu moo yenn benn jaamam benn mbindaanam ne demal may ma ndox mbindaan bi ñëw indi ndox mi bi muy génn ci néeg bi boobu fi sang bi mu ñëw nuyoo Aysa na ko bismillah mu xëcc rido bi yem ci jëmm yonent bi mu tiit tremble loxaas bi daanu toj ak koo mën a toll bu sa jëbët ja tegg ci kanamu yonent bi nga arrière wa man raahu mu faa jaatan yuhaabu bihi amaa mu xaalitoo fa saa idu raxami maama laa ji maal ne wa man raahu ku ne jàkk yonent bi mu faa jaatan ci betteel nga ne tëll yem ci moom yuhaabu bihi personnalité am da ngay tiit ba dellu ginnaaw amaa mu xaalitoo waaye boo gën a jaxaseeg moom fa saa idu raxami bis boo xëyee di ko gën di bëgg ah waay cheikhul xaw mee ngi joobe rasulillahi kii mooy way juru sëriñ Babacar Mansour xalifa général des Tidianes kii mooy borom ñaari kaale yi kii mooy soppe sëriñ Maodo si boo xamul kooku mooy doomu Seydi Hadji Malick gi nga xam ne Maam Alaaji Abdou nee na ومحمد المنصور حديم المثالي كيغا خامن بوي كير سيداجي مالك كي فيراو داك في جانغ بوكاي لاج نينا موني كذا الخليفه بحر الهلوم نافي الدلال جيجو خام خام ييب موي سيرن بابا كرسي ليپ لي رير تي كير جي موكو في جيلي واي محمد المنصور بو خام كوك موي حديم المثالي كذا صفي حبيب الله بروم ديكو جرفت ديكو سيل كوك موي محمد الحبيب كيغا خامن نك مو امول مثال كوكو واخني ولا لا هو بودو نك رسول الله صلى الله لم تدر الخليل قد قدره ايه ايه مام لاجي منصور نينا رسول الله ارانسي نا يالا تا يالا سخلول كوكو ارانسي واي امنا فوكو نبي ارانسي بي فتح الله كنو حوز البلاء استاذ جميل الحمد لله الموكنا جفا تشيسكور امنا ماغي ني خول لين ما ماي ديو كين مانتا وانا سابو لو تاخ جيول باخ تي دك لو ولا نيت ني وار كو خام تي يو موي تاخا واخ كو نيب xadis bi yonent bi nag sayyidul qawmi xaadimuhu mooy géwél mooy fàtte askanam fàtte léppam di la joxañ di la joobe maam alaaji Maalik nee na première géwélu maam alaaji Mansour première géwélu rasulullah yonent bi yàlla première géwélam bi ko joobe ba ñëpp xam ko bu doona moom kenn du ko xam kan la mu ne walawlaahu bu doona rasulillahi lam tadri du xam alxaliqatu mbindee fi xadrahoo dawe yàlla bu ñuy xam ana ana kuntu kanzan maxfiyan fa xalaqtul xalqa fa bii yaarifuuni kuntu damaa nekkoon كنزان دي ندامبولير مخفيا بونيو كاستي كان قموما فخلقت القلق مبين مدفي وهي فبي تي سانج بي يعرفوني جن مي خامي نينا فا 80 لا با 2 2 بليس 80 موي 82 يا 10 موي 92 كبين محمد موي 92 من فبي تي رسول الله تعرفوني جن مي خامي ماما لاجي منصور ولا الله بروانا رسول الله لم تدري دو قام القلقه مني في قدره دا يالا بفضل الله yonent bi sallam fataha la ubbee allahu yàlla al alkunuusan ndàmbi leer ya almo bawaadiya ya ñu kaste woon démb kenn xamu ko bu yonent bi xewee ñëw ca la ubbi kaste ñëpp xam kan mooy yàlla mamadou mansour nee lawul xam loo aji nekk la di ko ñaan moom ya rasulullahi alhamdu cant wal ijaadu lu tax mu ne wal ijaadu sunu sama mag abam am gi ñu am ni amatul ijaadi mu ngi amee ci moom kon war nañu sant ko jalla jalaaluhu jalla màgg na jalaaluhu ak màggam walim daal tëbb gi ñu yàlla tëbb ñun ba ñu xam kam mooy yàlla. min fadlil muniri nawaahiya. min fadlil muniri mu ngi jógee ci ngëneelu yonent bi nga xam ne moo leeral na nawaahiya ci bépp wàll. taqallab taqallab te bul wax ëlba da nga naan doonante nañ la. fi aslaabi. ci ndiggu guur yàlla yi. min sulbi saajidin. taqallab te doonante nañ la fil aslaabi ci askan. min sulbi saajidin nga tukkee ci ndiggal guurug yàlla gu gëmu gë gu nangoo gëm yàlla ba di ko sujootal. yaa ngi jógee ci ndiggal guuru yàlla la ko commencé ci aadama ba ci abdallahi ku war a nekk sa maam ku nangul yàlla la ilaa saajidin ay ilaa batni saajidatin jëm ci biiru nday ja ko nar a ëmb moom itamit ku gëm yàlla la te yonente bi amul maam bu gëmul yàlla taqallabta fil aslaabi min sulbi saajidin ilaa saajidin kon maasala mosta dëj maddu ko sa tedd nga raasiyan di sax ca mala ul aala maasiyan di sax di aji sax fii ci mala u suuf laa demal ci laabiyama famaazala manquuran min aslaabi tuurin mu ne famaazala dëjul man xuulat di ku ñu toxal moom yonent bi min asla bi toxrin ci dëgg góor yàlla yu set wecci ta dellul ca yaa yéba bu la neexee nga dem ca nuunu bi fi sulbin ويا أسمع المواهب بالعظيم bu Maodo defal Seydi El Hadji Malick ni ilahi tawbatal qabl تقلت بلا سناب منذ قلب إلياس يلبي ويسمعه المواسن بالاذين وكان يلبي بسلب الياس ويسمعه المواسم اي المكان بالحزين اي بالعلم من موعدنا وفي صلب الله dafa wax ca nuunee ba ne leeru yonent bi nekkoon na ca ndiggu maam Iliyaasa di làbbayka ñépp di ko dégg wa yasmauhu di ko dégg almawasim wasalul qarya mhm. ay wasal ahlal qarya mhm. almawasim ay allazina yajlisuuna fil mawasim ña doon toog ca palaas dañ daan dégg li leer gi li muy wax bil asini ci xam gu leer nañ làkkul soose làkkul bambara li muy làkk mooy leer gi maa war a nekk xaatimu lambiyaa yi ëllëg maa ngi ci diggu Iliyaasa di wuy ji sama borom di ko wuy taqalabt bil asnaami min sulbi kila sajidin ma zala majdu karasiya te sajidin ma zala majdu karasiya mhm. wa id kunta wa is kunta ba nga nekke yow ya rasulillahi fil arham te sa biiru yaay aminatu booba nga tey ta sell walam tadal te mosoo dañ yow yonent bi te tuuf beekal am ci sa biir bi nga di wër bi ka am laa ko malaaka yi di ñëw kenn ku nekk di màggal sa yaay tarxaa nga yéeg maraaqiya ay almakaan ya nga xam ne dañoo kawe daraja joo yéeg bu weesoo nga yéeg ba ko gën a kawe bi mawlidi ka ci sa gane àdduna yow rasulullah adduna àdduna bi zahat ca la tiitaru ca la rafet ca la taaru wata sayyadat ca la àdduna neexee ca la rafetee ca la taaroo wadaanat arbaabi uquul al amaniya wadaanat ca la jege al amaniya mébét ya li arbaabil uquul ñeel borom xel ya ku am xel keroog bi na bay gën a àdduna nga xam ne àdduna jag na Mamadou Mansour ne bi mawlidi ka al iwaan bi mawlidi ka ci sa gane àdduna al iwaanu iwaanu kisra ca la mujj booba la booba la booba la pale mu na kasan di lu ñu dammatoo ba mu daanu ci suuf ñeel na safara woon doon jaamu junni at xawrun akub niir ba fa mu doon daw safara ne ko ka anna bil maa i maa bil maa i min dararin husnan wa bin naari maa bil maa i min balalin wa booba ndox ma mujjatul daw maa kaana jaariyan ndox ma dawatul te daw na junni at ñu di ko jaam fii ca juddu ga xumoodu naari ca la safara fa giiwee ba fay raada ca la mujj bu xayratan ba mel ni as njéej mu def ko a tasqir wa saxiril baaba fa qur bu way bu wa naaru in saxartahoo nuway bu waxarat lawla sanamadulqil aadiya dafa mel niñ ma mayoon ci heure jeex na sëy doom may xool rek Mouhamadou Lamine jarna kon yow mi may déglu ma ñëw seet bay ko bay ko bay ko ومولد مولد ومولد جبلا مكل ومولد شرف سنين ومولد الحاج مالكنا ومولده به شرف وخير مرنا ومولده الحاج مالكنا ومولده به شرف وخير مرنا ومولده الحاج مالكنا ومولده به شرف مالكنا ومولده الأحد مالكنا ومولده به شرفنا وخير مولنا ومولده الأحد مالكنا ومولده به شرفنا وخير مولنا وناب به saba نظمي يكفي ضاعت لامي ونظمي حفظ عوض سجوني إلهي يا asanta waaw kon ay jabel wa ballaxta sukran laka ma daaneel foofu sama kàddu wa atqanta di wax tabaraka téléspectateur Malikia TV teg leen seen baaraam foofu mm-hmm. maag yéen la samedi bu jot incha allah ak oustaz jabel ak Seydou Nourou incha allah bu jot mm-hmm. ci biir semaine bi it mm-hmm. dinañu tànn mercredi wala jeudi incha allah ñu di ko def ñaari yoon ci semaine bi rabbul alamina may wax na lépp lu ngeen ci dégg loo xam ne dégguwul ci suul adab ci ñaka ñaka jotal wala ci sabqul lisan wala ci yaq dafa aju rek ci wama ma utitu min al ilmi illa khalila wa aynu rida an kulli aybin kalila walakin aynu sukhti tubdil masawiya wax dafa jafé ta bo waxe ku nek numuy muy mm-hmm. leg leg day damay japp mm-hmm. da ngay dégg nga day wax ay khurafat day mm-hmm. mané demal ci youtube bima ma seigne bi ab di jox rojo may am 26 ans ba leg musu wax ben wax lu hamna xam naa fu ma ko jëlee dëgg la te loolu ñi ma xam xam nañ ko foo ma fekk téere yi ñoo ma wër wallaay dëgg la nit nag mënta wax lu nam déggee ak fa mhm. xam-xamam yem mhm. waaye lu ñu wax rek am nañ fuñ ko jëlee dëgg la euh, damay wax ne ñett kenn mënul am ci ñoom lu la neex ñett ci la xoore nga neexoo ko mm. kooku yaay sonn yaa ko soof kooku bul essayer sax pour convaincre dëgg la am neex ak ki war a nga ne di nga ko faj mm. ñaar téeméeri junni ordonnance ngay jënd ak màgget moo bëgg mu dellu comme doolee ndaw mënul ne ñett yi amul solution màgget màgget lay doon mhm. noon noonu lay dee mhm. doon ku war a dee day dee dëgg bu ko defee kon ñu ngi bëggee ñëpp mhm. di wax ne ku day ni Oustaz Jabel mii Ibrahima mii nga xam ne ku toog ci kanamu Cheikh Al Hadj Abdou da baax di wëy firikat bu ne nga wëyal ko Abdou Aziz mbay soo toogeek ñoom di wax ñu naan la baax na jàmbaar nga di la ak encouragé dañ laa bëgg a wax ne la góorgóorlu waaye munoo wax lu leen yëpp man su ma toogee ci place di wax sama xel dafay dem ci sama sëriñ sëñ Babacar si Abdou fi ilmihi mm-hmm. wa fi adabihi mm-hmm. wa fi majaadatihi mm-hmm. fi xayaa'ihi fi karamihi te di ngay jikko yi ne ci moom yëpp mu toog di la déglu wa hakaza sëriñ Maodo si wa hakaza xalifa bi ñooñu boo xamee ni ñu fonkee kër gi ak ni ñu bëggee kër gi ak ni ñuy bàyyee xel kër gi ngay wax ci turu kër gi ñu lay déglu te lépp lu sëñ Babacar si Mansour daf ma ne yéen ñi dem ci mbooloo yi di xam leen ne lépp lu ngeen wax lu waxuwul ci suñu ndodd lay tegu waaw lépp lu ngeen wax lu waxu ñépp a koy béggoon béggee waaye benn faute rek ñun ngeen ko teg moo tax lu ngeen di wax na ngeen koy majeur mm-hmm. mm-hmm. moo tax danañu jëm suñu kemtalaay kàttan mm-hmm. mais nit nag du mat nit du mat lu ngeen ci dégg lu dégguwul ñu ngi koy jéggalu waaye liñ ci jublu woon mooy Maxtaar Njaay waruñu gën a gore warul jël alalam di ay millions def ko ci lii waroon ko bokk ak ay njabootam mu woo ñu ñun ñëpp na nañ symboliser diine tariqa bi kër Seydi Hadji Malick kon lu ñu mën ak lu ñu mënul dinañ ko ci def yàlla xam na ne bi bi dog jotee benn kaasu kafe laa naan daw ci xal sëñ Babacar si Abdou ne ko ñu ngi dem ubbi ji bis ba mu ñaan wax wax yu rafet yóbbante nuyoo ma doog a am fitu ñëw te buñ doon dem ba fajar duma ma doyal mm. parce que nit buñ la woowee ci kaay lu luy waral ngërëmal yàlla kooku war ngaa góorgóorlu ba loo mën nga def ko ca bi tey sant la Hadj Seydou bëgg bu baax ci yow ci ni ngay déroulé affaire yal la yàlla fay jabel kontaan nañ li yëpp ay encouragement la Ibrahima jëf ca Saalum la ma ko wax mm-hmm. ci ndigalu xalifa bu ñu dem gàmm la ma ne préparé le vendredi mm-hmm. te boobu ñu ngi waajal koor gi incha allah yow yaay ubbi académie bi fii ñi fi bari xam-xam bari na ñu ma raw rek a fi daje fu Pape Makhtar Kébé ne professeur ak Cheikh Tidiane Kébé ne fa nu mu ti sëñ Mansour Fall ne fa yow nga ne fa ay universitaires yow nga ne ci daal di jéem waaye ñu jël gàmmu yëpp teg ko ci sa loxo kooku seen mbaax la ak seen yiw ak seen tedd nga waaye du sunu xam-xam du sunu man a wax ah, du xam lu ñu war a wax ah, bi ci des xaaj ngañ jërëjëf ngañ yàllaa def man ak moom ñu déggoo jag sa saalum ci ndigalu Serigne Sidi Ahmed si Dabakh Koyande Kanji ci ndigalu sëñ Sidi Ahmed si Dabakh euh, Ngulum ci ndigalu sëñ Sidi Ahmed si ab Dabakh mu jëlee ko suñu bàyyi sëñ Maodo si programme yooyu yëpp ñoo koy bokk ci Saalum mbokk yëpp di ànd di ñu béggee mm. ci barke Serigne Maodo si mm. waaye ci barke sëñ Sidi Ahmed si Dabakh waaye Thierno Seydou kaay ma wax benn secret jeg saa Saalum mm. Koyande Kanji mm-hmm. mbulu Ngulum mm-hmm. soo fa demee di bu bëgg xaalis bul wax ci yonent bi bul wax si Aji Maalik neel sëñ Maodo si nee rek rek hmm? boo ne sëñ Maodo si neen hmm. li ci seen poche yëpp la ñuy yuqi jox la ko oh. boo fi nekkoon di wax Jibril yàlla dañu lay fotosu di la déglu téye li ci seen poche yi di déglu rek nga ne Serigne Maodo des Serigne Maodo si da baax